bi may dem ñeenti fan ci ginnaaw bay woon naa góor gi yaram bi xaw sutante waaye ñu ngi doon am yaakaar ndax xam xam taxawaayam xamitam gëm yàlla ak njàmbar waaye bi ma wàccee sànq avion bi bi muy tegu la message yi yegsi jot message yu sëñ Babacar ibnu sëñ Abdoul Aziz ak message du gouvernement bi premier ministre de l'intérieur yëgal ñu xibaar bi kon réew mi tey ñàkk na ku mag Sénégal ñàkk na ku tedd l'islam bi ñàkk na kenu ndax kenu yaakaar naa ne suñu mbokku kayoor ak suñu mbokku njàmbur suñu koy wax ñu ngi wax yi li nga xam ne bu ñu defar mbaar moo koy yor nekkoon na ci at yi yëpp wax ngeen ko lu ëpp daanaka juróom fukki at di dox ci diggante kër gi ak këru diine yi waaye di doxit ci diggante kër gi ak nguur gi di dox ci diggante jullit yi yor kàddoom buy kàddu buy defar di kàddu buy ñaw kon Sénégal ñàkk na bàyyi ku ci nañ Abdoul Aziz Al Amin yal na ko yàlla xare aljana te am nañu si yaakaar ndax at yi mu ko jëlee ak jamono jii mu demee yaakaar mën na si am ah, xam naa ne daal ñun ñëppay dem ndax ku fi bàyyiwul sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwoo fi saabaam yi bàyyiwuñu fii suñu maam yu tedd yi sos walla boog dëgëral diine ji kon kenn du fi des xanaa nañu ñaan yàlla rek mu yàgg sëñ bi ngeen yàgg di ko fi toogal di jiite njaboot gi eh, ñu ne yàgg di leen fi fekk ñuy ànd di liggéey ngir jàppale leen ci li nga xam ne sunu boroom moo leen ko teg fii ñu toog symbole la ci liggéeyam moom Serigne Abdou Aziz fii moo ko sumbaloon boppam liggéey bu yàggoon bu metti woon itam te ku ne xam na Serigne Abdou Aziz ci ay waxtaanam lu mu daan suufale boppam ndax loo wax rekk mu ne mbirum taalibe la ah ginnaaw mbirum taalibe la nag dañuy kër këri rek mu tàmbaloon liggéey bu yaatoo nii nekk liggéey bu am solo mu amoon ci yéene lool ba mu ñëwee ne ko bi buggoon naa am lu ma def ci Tiwaawoon jàppale la ko ci liggéey bi mu ne ma xanaa nga tàmbali lu bees ndax lii ginnaaw yëfu taalibe la te tàmbali woon nañ ko xanaa nga bàyyi rek ma kër kër yi ba jéem ko mottali ah kon ku gis li tey ak ku gis Tiwaawan li fi ne dinañu xam ni en tout cas ci ayam la ko yàlla sottale loolu nag kon bu ñu ñëwee tey ci amphithéâtre bii tey famille bi di jël njaalu senegal yépp loolu day wane rek benn ci dimension bi mu yoroon muy dimension de bâtisseur tabax na nag luy lëkkale xol yi liggéey na ngir njaboot gi nekk benn liggéey na ngir diine ji nekk benn liggéey ngir xol yi nekk benn matul weer jokkoon na ak moom boobu maa ngi bitim réew si rek nu ñuy def ba jàmm gën a yaatu ci Sénégal te ma xamoon ci ay jéego yu ciy dox moom ci boppam kon ku mel noonu bu demee senegal yépp daañu ko jooy waaye daañu delloosi suñu xel xam ni suñu borom bi nga xam ni moo fi wàccee lii dana fi teg ñu mottali mission boobu li dana fi teg ñoo xam ne ñoom it puso bi du réer mukk ci seen loxo am nañu si yaakaar moo tax bu ñu jooyee itam ñu xam ne l'œuvre continue muy œuvre bi Seydi Hadji Malick Sy tàmbali woon mu jaar ci ay xalifaam ba yegg si fii tey kon nañu am njort ne liggéey boobu du mën a réer mukk kon sëñ mbay ah, maa ngi wax ni ci jamono ji ñu toog maa ngi lay jottali njaalu gouvernement bu Sénégal yëpp yow ak njaboot gi yëpp ko jottali suñu pap Malick si ak suñu papa suñu Sidi Ahmed si ah di ko jottali famille bi yëpp ak njabootu Serigne Abdoul Aziz Al Amin di indi njaalu nation sénégalaise ndax tey bu xalif général de Tidiane wàcce liggéey yaakaar naa ni Sénégal yëpp ñoo bokk tiis boobule Afrique yëpp ñoo bokk tiis bi waaye umma islamique ci boppam ñoo bokk tiis boobu kon sëriñ bi loolu laa bëggoon wax ci kàddu yu néew ndax jotaay bi mu ngi bëgg a yàgg te li am solo mooy ñu ñëw rekk feddali leen la itam yow sunu kóllëre wax leen it dinañ nekk seen wet di leen jàppale ci mission yi ndax démb ak barke démb am na déjà foo féete woon yow mii tey sëñ bi te booba mbubu bi ma sol soluma ko woon kon kóllëre googu du deñ mukk lu dul ñu taxaw seen wet jàppale leen ci lépp loo xam ne mission bi laaj na ko jàppale leen ci taalibe yi jàppale leen it dëkk bu tedd bi di Tiwaawoon loolu mën naa mën naa ko féddali kon maa ngi sant di gërëm allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim